Dafay wane boppam ana sunu bël ba dafay jaay زي جمعتي باي kai, kai kai, اي kai ايدي هاي لا لا يا kai kai, لله الحمد لله jama bi nag sa yére bi deux jours ak moom ngay sol kii sama maaraam ko ñaan ah. day tax wërsëg yi dugg rek respect mais yow ko wax loom dara démb déem waa ku loo ma daara de. ah si bi zëbi waaw waaw yow daara de. yow zëbi nee naa si jàppee naa la wax. 3 millions kana. waaw 3 millions mais ba jàll. <laughs> benn benn bii moo koy yàq. xam nga yow chaque jour benn bii chaque jour benn mas rek benn benn. dañ kaa door léegi xoolal yaa ngi si eh. envoyé nañu message. message waaw nee nañ soo si tegee 10 000. waaw waaw 10 000 wala 5 000 jëm kaw. waaw nee nañ la jox 1 milliard. un milliard day tax ma jënd kàr yi bëri léegi bu bi du ñëw jéem seytaane bi. waaw waaw doomu naal daal ñaata laa la jox. lii nag may jox cinq mille jëm kaw rek. cinq mille ñaata milliards laay. milliard. un kam booy dañoo sàcc sama kaas. waaw père père góor ak doomam bi. waaw ñoo sàcc sama kaas ba. buñ dem làmbatuwaat. per cinq mille tuuti na de. bu mu yéen. cinq mille tuuti na de kaw laa la kaw. deux mille un million laa bugg mu gaañ. deux mille daa tuuti per. defal ndànk da ngay teewal da nga ma bugg nag mille jëm kaw lañ ci wax. defal ndànk deux mille un million. Ah. quatre millions. ak ah. ah, kon kay bàyyi ma jox. déedéet déet indi cinq jënd ci jangan jënd ci connexion jangan ñu motale ko jangan ak li ma jangan connexion donc koy jangan jeeg ak taay ak taay ak taay jangan waa taay bi jangan xaar yow lii jangan ko jàppee di nga mën a jënd jangan biti usine usine jangan nga sax bëggum jangan jox 500 bëggum jangan bëggoo bëggum waaw après léegi su jàppee jangan naa la wax jangan maa ngi koy dem dugg ok tout à l'heure ah yow mi tubé caag rek ngay sol waaw baax na bës kaan yaa ngi waajal événement bi xanaa Hani mo yang gis nay pour nice say weeru lëndëm saa yi nangoo sax bu xamee sa kanam gaañ non parce que yow maa yow li nga bëgg a teg père moom moo dul mere di ba nii dama mere de waaw loolu sax bëggoon naa si waxtaan ak yow si cadre père bi c'est que père boo gisee mën mënu xaa may jam si kali. bi dama teg so dama teg bët quoi ay de client la may traité lu ne te loolu si jubal bu loolu weesoo xam nga nañ nekk. relax waaw leneen nga bëgg exact nekkaat nañ meloon xam nga doon ay xarit. loolu moom si yow la dépendre boo bëggee maa ngi jubóo. sama papa dama koy yor cëram comme ni ma ko jox xam sama papa xarit la dama koo xarit. gànnaaru mel noonu bëgguma ku koy doon quoi. après koy may jàmm. mais yaa ngi waajal taw si de gain. gisoo gisoo benn booy laa doon vocal bi gisoo. gis nga booy bi. booy bi maa koy booy bi mu yëngal koñ bi temps yi bu la romb yi daal di defal ay bëri cottu ndayam parce que maa ngi moom la nii. waaw fa laa koy yóbbu waaw. foofu nooy la mais daa am loo xam ne waxtaan sax loo xam ne intéressant mooy daal bëggoon naa si wax ak yow mais fan yii mooy romb di ñàngal di ñàngal. waaw ah, baal ma ko ñàngal bi nag juwoon nañ nag xawa ah, ah na dina xuloo ci xuloo lay mujjee wala. jóge dëkk ba seen booy boobu ban booy booy bi ma la coppati de booy bi sama yaram bi sama maam sama buumu dama yi su ma ko jëlee sama buumu dama yëpp ay bàyyi sama damay tàggalu ko sama sago gis naa ko di ko xool mbëkk miir bi def benn benn sa mère gis ma mais man ragalu ko loolu. man boobu daal booy bu nekk suñu gaal. kàdde kooku yóbbu na sama coppite. sama sa jabaru yoonu seytaane. kooku yaayam ak mais foofu deret ah xam nga ñaar deret bu sëkk mooy waral ñu jur ay doomu lafa ay ñu gis ñu judd ko léegi. Hmm, ñooñu ma am yooyu deret bu jege moo koy. booy yow ah buñu jéem law bàyyil ma jël wala la nga bëgg wala ma jël bi xam nga nekk xam nga moom kaw dëkk ba la jógee jógee dëkk ba nga koy jël andi la andi ko si dax bi defaraat ko booy boobu gis nga booy booy kilifa yi dina da ngay jëg gis ay kilifa yi sol di ko am na mais ay condition ay samay condition lay quoi père bi neex rek neex xam nga lan la da ngay ci

ah monsieur le la si biir may na trop khalis mom dina genn mom khalis bi xaaral mo xol sama message mom mais bi un million cinq cent la avant da juum ah monsieur xar bi ki 5 millions lay jar waaw 5 millions lay jar de ak man nga xam ne may may course yi ma ci doxal crédit bu ma ci yàq waaw pël bi waxtaan ak mom bam mu xar mu rëy la xar mi ma xam naa ne mu gisee di nga bay aduna waxu ñaan foofu moom day dox moom parce que maire yi jaar seen kaw moo gën a yomb. ah waaye sama colocataire. na def. maa ngi si jàmm cool. naa gis nag. maa ngi fi. man it xanaa nekkoo fi woon. si fan yii xawoon am lu ma la gisee si wala lijjanti si koñ bi moo tax ma toog bëri moom lu may toog si kër gi. lijjanti ay business. yooyu laa fi nekkee. maa daak business nag. kaay ma hmm. wax la leen nag business bu ndaw la. waaw ah, yow yow ci ngay business moom foofu benn heure ak benn heure bi soo soo léegi yaa ngi soo si dugalee quarante quatre cent milliards mhm. man kese maa ko am si àdduna bi man kese maa ko am mhm. soo dugalee quatre cent milliards mhm. quatre cent millions quatre cent mille kon damaa juum waaw soo dugalee quatre cent mille mun ngaa gagné quatre milliards quatre milliards quatre milliards waaw moom ngay gagné booy nag il faut nga wax la sa bopp ah. man koñ ba ma fi ñëw waaw buti maa taxawu fi slip aw ma ko woon ah. maa la dàq business nga ne maa la dàq business sa business yi ngay def baaxul lekk xaalis nit ñi nga fi nekkee lekk ma xaalis kenn déedéet sa lekk xaalisu nit ñi nga fi nekkee di wër di di wër di tegatu dil man moom sa sëy yi doomu si dugal sa sëy yi xaw ma ay application yoo fabriqué père laajal benn yére bi ngay sol chaque jour booy xam nga laay xamal lekk sama dërëm lekk sa dërëm bu bàyyi xa gën a yomb ak yow ma lekk ak sa dërëm bàyyi booy